nañ muallaf saatiyan ci jamonoy sitaa wa warite root nga wirdal joodi dogal xayra musawadin mbiroom doole ku ñu dàq doole ku tere boo xasee ba àgg ci barabu ibnu nasir lu lay gàllankoorati ci xam-xam lu lay gàllankoorati ci njub loolu xamut te boo xasee ba xam jub rek da ngay te saytaane innahu laysa lahu sultaanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkaluun waaw mu ne saytaane amul kilifteef ci ñooñu amul sañ-sañ ci ñooñu waaw ñi nga xam ne muminuuna lay muxlisuuna lay mutawakkiluuna ala allahi lay te yooyu nag ci la lay yar waaw su ak barke yooyu buñ liggéeyee ci yow rek dafay doy sëkk wa warata te nga root min maayil furaat yi ci ndoxam furaat su laalewoo ndoxam mu sell mu ne su waa yow sa xam-xam ak say liggéey ni muy sellee ci biir yeneen ci ci biir xeeti xam-xam yi biir xeeti liggéey dafa mel ni ndox moomu ñaa nahrul furaat yi nim ràjjee ci biir ndox yi ca sell ga ak neex ga yow sa xam-xam noonu la ràññee ko ci xeeti xam-xam yi sa liggéey itam noonu lay ràññee ci xeeti liggéey yi is kaana ba nekkee xayru ka kudul yow waari dan te aji root aji ma madi aji tuuti ndoxam aji aji soppeekuy ndox mu tuuti aji soppeekuy tepp tepp maa un a jin xam ne jiim la ak maa un a sin xam ne sin la ñoo yem mooy ndox moo xam ne dafa soppeeku mu ne ki nga gis mu nekk ci taataasu xam ne ndox mi forox na la mooy root buy ndox muy jaxam kem lam ca mën a xam itam kenn du ko tollalee teeroot ci nahrul buraati ndax kooka la ndoxam mi ëpp kooka la ndoxam mi gën a sell mu ne keneen bu dee fee feneen itam ñu ne mu faa jëriñoo ca la fa nekk taxul ñu war ko tollale ak ci fekk ci nu naafiri na morom loolu la wax mu ne yaa ngi root ci nahrul furaati ci maa ul furaat te yaa nga caa root maa un zulaal keneen da root ci maa un aajin minal madiyi léegi nag xëyru bi nag moom xam fu mu ko xeenale ah is kaana xëyru ma ne xëyru yëbi fu mu ko xeenale de waaye ñun nag bokkuñ ci moom asaabu tijaani de moom xëyru bi xam xëyru yëbi xam baale wut leen ah xëyrum gi daal moom xam fu mu ko xeenale waaye ñun bokkuñ ci moom waaw <laughs> ah, xëyru yëbi nga gis is kaana xëyru ka waari ma di mu ne waaw xëyru yëbi ah, xam fu mu jëm daal <laughs> du ci ñun de du ci ñun de du ci ñun de waatee te dégg nga dikkal bayta na mi néegam xam-xam wala ma ni ak jëf arida jëri juñu gërëm min baabihi ci buntam mutasiban mbirum muraaja mbirum garaaja àndaale lil mi xala di caabi mu ne boo dikkee ci ibnu nasirin barabam ni la xam-xam ak def lu baax da yombee mu ngi mel ni xam-xam ak def lu baax dañoo dañoo dencee cib néeg dina ko baax a baax mu xomat la ba ci ba mu jox la caabi ji fi mu nga tijji dugg rek moo lay dese waaye nag yaa di tijji nag gis nga bu baax a baax gis nga tarbiya lu ñàkk sart gis nga bu baax a ibnu nasir pour nga ànd boo àndee moom pour nga baax mooy nga sàmm sartam rek waaw moo lay dese waaw tijji nag yaa koy dem mooy sarta bi sëriñ sëriñ bi tëral ne ci lay àndeeg nit yow mi bëgg jëriñoo yaa koy sàmm nag yaa koy sàmm de. sëñ bu baax a baax ay calab calab loolu yëf yi bu la càng càng loolu yëf yi ku amul kilifa lu ne nga sarax sarax yi dugg kalaw kalaw calab calab loolu bu la càng càng loolu yëf yi ku amul kilifa la te nangu la ko xale yi koo xam ne fu ko neexee fu ko neex gont rek ku amul kilifa lay doon waaye ki am kilifa du demee noonu. sëñ bu baax a waaw ca loolu bu la càng càng calab calab sarax sarax fu ne nga dugg loolu yëf yi ku amul kilifa la waaw. loolu bu baax a baax waaw ah, mooy tax nag faaw nag faaw nag dañ lay jox caabi yi ne la tijjil soo bëggee dugg nag da ngay nangoo tijji waaw ah, moom boo ñëwee moom gannaaw moom tarbiya dafa am sarta faaw moom dana la woo sarta yi muy ànd ak nit ne nga nangu sarta ya rek nag moo doon sa diggante nga jëriñu loolu mooy wax ba rek waa nga dikkal may taneel mi néegu xam-xam wala mu de ak jëm arriba jëriñuñ gërëm même baa bi ci buntam mustasiban mbirum nga daa ji àndaale léegi mi xëla di caabi ji wow fatte matal la ka ñaxaan alayamu fan yi maada mi taaliha ci gannaaw seen ak yàggal mi liqaa'i misbaahi zaman ci dajeeg lampam jamono al al aw xaadi bu raaji wéet mu ne te itam su fekkee bëggoon ngaa xam kii jagalkatu jamono ji soo dajeeg suyid ibnu nasirin loo sonnoon sonnoon ci wut ga sooye boo nga nga dalale te xam ne mu ngi ma su fekkee bëggoon ngaa xam kii jagalkat ci jamono ji nga sonnoon ci wut gi boo dajeeg suyid ibnu nasirin salo sooyee boo nga dalale te xam ne jot nga waa ji dégg nga sëlën bu baax a baax a baax ah sëlën bu baax a baax ah Cheikh Omar al Fouti ay taalibeem daan nañ ko waraloon dégg nga xam nga ko doon tàggat yaa saahibal waxti yaa Mansour yaa Wasaru yaa Seyxana yaa Wali yàllaah yaa Omaru yaa Talaatal Yumni yaa Saadal Anaami waya Nuura Zamani wa Sayfallaah yaa Qamaru ah way loolu way loolu sëlën bu baax a baax woo fatte masal la kañi xaal la aka yaamu fan yi baax de misaali haan ci gannaaw seen ak yàggal bi liqaa'i ci dajeeg lampu jamono ala hadi bu daa jibee ndax lii arhaqat ka muaadatan bi sawi siyaadati faltaot bil aswadi wa ida turidu wala qawmin fantasib minhum li asmahi durwatin wa samahdadi fan'am bi aysin la yutaaru xuraabuhu wanqa bihi xulalal fuaadi wa amxidi bi maarifin minhu xisaarin law xadat maan la kaana niilu minha kalmadi walaw intasaa منها رصاد طيف في الشاس أبرد يوم ساك بلا كدي dafay wax sëriñam bi nim doxee waaja muy xiir mbokk taalibeem nag ci ngëb te bañ a ngëb ngëblu ndax dajeeg waaja yombut te waaje ku ko xam war toggee su kenn wala ne wa idan layaali bu la toggee guddi yi bu la guddi yi mooy bu waralee ci yow nga firi haale arhaqatka maadatan weedu mooy làqu bi dawi siyaadati ci boromi càng yi mooy su fekkee jamono dala tollale ci nga war weedu cib sang mooy da doon ko xam ne sa mbir dafa laaj nga am kilifa fal taxoot na nga wéedu bil aswadi ca ka gën a doon sang mosu waa ka gën a mat kilifa soo ko jitee tànn ko muy sa wéeduwaay ndax la ñoo tànnee kilifa ci wéedu ci moom la daqaamee waaw ka gën a mat kilifa soo ko jitee tànn ko muy sa wéeduwaay ndax la ñoo tànnee kilifa ci moom la dàqaar way daa turiidu boo namee wala qawmin méngoog aw nit mooy xaritoog aw nit wala méngoog aw nit fantasib na nga askanu minhum ci ñoom li asmaxi durwatin ñaal ka gën a gudd ci ñu luxtoon wasamax da di aga ci sell seen su fekkee yow bëgg di askanu ci aw nit naan ñooy say mawaali yi wala seen mawlaa nga nit ñooñee seetal ka gën a yëkkateku daraja ka gën a sell ci ñoom nga tànn ko def ko muy sa askanu waay aw nit daal boo bëggee di askanu ci ñoom lang leen tànnee da ngaa seet ka ca jiitu te gën koo nga ne nga nga jàpp ca moom nga nga téye ko aw ni daal boo leen tànnee la nga leen tànnee da ngaa seet ka ca ci ñoom te gën ko raxati nga daal di jàpp kookale nga daal di jàpp kookale. Ah, pour pour pour mën a ah, pour pour daa wan dafa pour daa wan sëriñam bi du yemalu ko kenn rek ay koo gis rek te ibnu nasir sëriñam mooy ibnu nasiram koo gis rek jàpp na sëriñam kenn gën na loolu way daa turiidu boo nammee wala qawmin méngoog aw nit su fekkee yow da ngaa taamu jaxasoog aw nit léegi da ngaa tànn ndax yow boo baaxut it jëriñoo ca ga comme na ko ay wax ne waxee ne uhibbu saalihiina walastu minhum la'alli an anaala bihim shafaa mu ne waa fan tasib nga askano minhum ci ñoom li asmaxi durwatin ñaal ka gudd ka gën a gudd njolloxtu mu ne seetal ka gën a mat nga def ko muy luwee duwaay wasama da di aji sell seen ak ka gën a raxati fanaam na ngay xawu bi ay seen ci dundu boo xam ne layu taru defu naa wal xuraabu hoo baaxaañam wan xaa te na nga màndalee bii ci moom mm. xolalal fu aadi maru xol mm. waan xit te na ci bëri naam mu ne yow mi ànd ak Ibnu Naasir xam mm. li nga xam dafa baax bañ a neenal loolu rek mooy saas moo tax am nga dund boo xam ne su ko baaxaañ saboon kenn du ko dàq ndax dañoo gis ne baaxaañ biir baaxaañu barke la kon nag nañ ca tawu bu baax mandal ci sa xol wala ci nàmp comme fi ay seen layu taaru xuraboo lu yoon ci bopp téere bi fanaan na xawu bi ay ci dund boo xam ne layu taaru déful naa wal xuraboo baaxaañam wan xaate na nga mandalee bi ci moom xolalal bu aadi maru xol waam pett nañ ci bëril ndam fanaan bi ay seen dund bi lum da Mulaane bi ma aarifin ci xam-xam. min wu ibnu Nasirin. su ma ko waxee xam-xamam bi wax. ay taari ni dafay bëri. xam-xam bu yaatu bi ne. nekk xam-xam yoo xam ne law xadat bu ñu mujjoon maa ande ndox. la kaana kon nekk an niilu niilu misra. kalmet de mel ni tepp tepp minaa ci ñoom. wala xam-xam ibnu Nasirin ñu ngi njëkk muy sëriñ. suñ la tëlewoon daf di ndox kon dana bëri bëri ay goo xam ne boo ko leeralee niilu misra niilu misra taataa su ndaw lay do ci peggam niil mooy dex gi waa misra yëpp defayee dex gu mag a mag a mag la dex gu barke la itam mooy dex gi Seydina Omar defee woon karaama bu siiw googu nekk dex goo xam ne fu ne turam àgg na ba ci àddina waaye niiru misra moomu ak lu muy lu muy am tut ak lu misra mel ni xabban na leen suñ nettale woon ne xam-xamu ibnu nasir dem si ndox nga jël ndox mi xam-xamu ibnu nasir askanante leerale ko niiru misra niiru misra taataa sunna ma day xam misra réew la attan dina bu baax suñu naasir na ba ko xam ne ci àddina bi war nañu mën a jëriñu ci moom. te nag ku attan àddina rek ak ku attan réew. loolu nga lim bëgg a wax rek. min ha ci maarif yooyu. rasaa sun taw bis wisal. sayifun bu daa ci fi saasi ci suuf su daa di mooy suuf su bëri bañ su ngee jaam su nanguwul kon arraba mun naat moom suuf sa yow ma saaki ci bisu keroog bila kadin ci lulu ci lulu gànt wala ci lulu hijaan ci lulu wala ci lulu mu ne xam-xamu ibnu nasir bi suñ na tëlle woon ne ndox la mu taw ji taw si wis wisal su xam ne caara daanu saxal loolu nag muy jamonoy cooroon am na dur waxtu mbay loolu muy suusoo mu ne kon barkeel ndox man mën nay tax ci saa ngay gis suuf sa naan loolu mooy dem bëgg wax dégg nga mooy ibnu nasir waxam xam-xamam bu gàtt gàtt gàtt gàtt bu xam ne nee nañ daan kuy yara da ci gàttale bu tuutee tuuti te lu mu baax a baax ci barab boo xam ne fooguñ fa sax tegu sax comme kuy yara waaye day waxtaan kom nu ñi rek mu dalale ko ci nit koo xam mu ne barke waxam xàgg na ci kooka mën na ci barab boo xam ne sax niruwut ne fay waxtaanee xam-xam jëmale ko ci ku fitirlu kooku jub baax lool ci saa mu ne barke boo xam ne dina ci wane bu ndaw ci jamono cooroon ci suuf su ñëgas suuf sa naag ci saa ne wala leen tasaar su fekkoon dafa tasaaroo min ha ci maarif yooyu tasaar sun taw wis musayifun bu daaji wàcc ci ci su ci suuf su daaji ñegas mooy suuf su bëri day naat moom barab ba yow ma saaka ca boobale bila kadin ci lu dul gàtt ci lu dul hijaab wa bi himmatin tadarul xabida waraaha su xabida waraaha sama man wattasmoo lil asammil aqwadi jarrat alal falaki duyoola wa xayyamat fawqa nujoomi zuhri ala maqaadi sayid ibnu nasirin yi nga xam ne ci lay e, jëriñee nit ñi bokk na ci hitte bu kowe wa himmatin wa himmatun aliyatun anil wara bi rafdihim wa rafdi dunyahum wara aw himmatun aliyatun anil wara bi rafdihim wa rafdi dunyahum wara am hitte bu ba nga xam lu dul yàlla rek ci gannaaw hitteem ci la moo tax ku ànd moom na nga ànd yàlla wa bi himmatin ak hitte joo xam ne tadaru dana mu bàyyi alxadida barab yu suufe yi mooy xur yi wara aha ci gannaawam sama man ngir yëkkateku ci bu kawe bi nga xam ne luy ni doog suufe rek ci téem romb na ko ci lay xéegee ki mu àndat ba koosa xàgge ci kawe wattas moo dana yëkkateku moom hitte jooju min asummi ci aji aji kawe ala qawati lu aji gudd nekk gim nekk de borom hitte bu kawe moo tax boo àndeek moom faw danga xam ak kowe fa kun rajulan rijluhu fi sara wa hamatu himmatihi fi surayya nit dafay doon ku hoyof ku xam ne day mën a ànd ak nit ñi ci waaye nekk borom hitte bu kowe boo xam ne lépp luy tardeel nit rek moom loola gërëb le na ko hitte bu kowe nag buñ ko waxee mooy nga bëgg yàlla ala kullu shay'in ma xala allaha batilu mu nekk itte boo xam ne jarat diri na mu asuyoola ay lapit alal falaki ci fulu bi waxay yamat dañu sax ala maqaadim gën gaay kawe ci saxuwaay soo xam nu juume ci kaw bi diwi ak duhri yi da rafet yi da leer itte boo xam ne tiim na bi diwi tiim na fulu bi yi nit ñi foog ne mooy mbir yëpp moom hippeem romb na ko lem ci li nga mooy dayo ila rabbikal muntaha muntaha wa xalaiqin sujuhin araqa min annada wa aladda min jadatil muhaylil murmidi wasi'at dimasatuha al-anama wa albasat sawbat tafaduli kulla jabin hiqtalati wa saqat qulub al-khalqi kasat riba bi tajawuzin wa ta'attufin wa taxammudin jàngalool wa xalaa'iqin ak jikko sujuhin yu de way yombu mooy xame xaala mardiya mu'tadila loolu mbiram la wa xaalatun mardiyatun mu'tadila beneen xiyaas bi fi jamee al amri la loolu mooy mbiram mu ne ku jàppandi la araqa jikko yu gën a sew minan na daa ci lay ndoxam lewul lay lu bon bon xat-xat mën na ko seetl waaye Sayyid ibnu Nasir su ngeen di jëflante su ngeen àndee lu mbir sew sew rek da nga seetlu na mooy wattande ko lor la na mooy doonee ku la ku la bëgg a lu mbir sew sew rek. ah danga seetlu moom nam caay wastane koo lor la lu sew sew rek danga seetlu moom nam caay doxee ku la bëgg de baaxee sew sew rek danga seetlu moom na mooy wastane koo lor la lu mbir sew sew rek danga seetlu moom ni muy doonee ku la bëgg de baaxee wa xalaayiqil ak ci jikko su way yomb araqa yu gën a sew minen na daay lay dafa am ñetti wala ay nit ñuñ jàppoon xatte ne dañ leen rey ba nga xamee ne taxawal nañ leen ba war leen a lay rey xam ku buur daw dem gaaw a gaaw taxaw fañ leen war a reyee njëkk fa buur bi ne ko lii mu ne ko xam naa ne ñun kenn defee su ci lu bëri waaye naa leen baaxee boog raw leen kem li ma a raw këm liñ ma këm liñ ma këm li ma leen a raw te loo xam ne xëppal naa leen ku ci dund te loolu bu baax a ñoom dañ leen jat bëgg leen a rey te ci tooñ lañ leen di reyee am ci koo xam ne moom suñ leen war a reyee daw na njëkk fa ndég moom nañ ko reyaale buur bi laaj ko lu waral lii mu ne ko waaw comme li ñu defee ñun bëreetut damaa bëgg sédd leen mu fi waaw man ma may na naa de kii njëkk a dee xam nga lu xat la waaye teewul bëgg na di ci baaxee ñi ma ndat loolu doo mu ci baax leen doo mu ci baax leen doo mu ci baax leen nga bu baax a baax benn waaye boo xam ne dañoo nekk ci xare ba xare bi mu am mbokkam mu daal di ndox ne ko koy seeti ci biir ñu tëdd dem ba fekk ko fa mu lu ñàkk solo des fa mu ne ko dama la indil ndox xam ko bind ca teggam mu joxoñ ko ne ko demal ci kële bam demee ca kooka su jox ko ndox mi su paree jox ndox mi mbokkam kooka itam ko bind ci teggam mu joxoñ ko ne ko demal ci kële ba mu yàggat ca kooka fekk kooka dee mu dëpp ci ku ñaareel ki fekk ku ñaareel ki dee mu dëppal si mbokkam mi fekk mu dee kenn naa lu ca ndox ma ndax kenn ku ne gën a baaxee morom ma ak lu mbir mi xat-xat waaw yàlla du jaaxaan de yàlla moo leen di jaga jagalal boppam moo tax ñu ngi am jikko yoo ñu ko am waaw wala leen defaral boppam moo tax ñu ngi am jikko yoo xam ne ñu ko am Abu Suleymaan ad-Daaraani commerçant la woon bu bu commerçant la woon da daan jaay benn bis nit dikk na ko yéen de seen marché ba lakk lakk na mu ne lillahi ñu ne ko waaye war a sa place bokk ci mu ne alhamdulillah mu ne alhamdulillah jàllal ba man nag seet war naa man dama ne alhamdulillah xalaat na jaati doonal muslim li dal jullit ñi ma loolu lay bëggee kon mbiri jullit ñi soxla soxalu ko dëgg man damay mel ni jullit ñi ak sama bopp daal ah li leen a mel ni comme man la dal mu ne waaye fekkee xalaat rek moo may yóbbee lii tey la ñoo tàggoo booba la saraxe biti bag la ca newoon keroog keroog la bañ jaay rek nekkal yàlla rek waaw c'est le dëgg bu fekkee xalaat moo may yóbbee lii tey la ñuy tàggoo keroog keroog la bàyyi biti ba ak lépp lu ci nekkoon saraxe ko pare na liggéeyal yàlla rek pare na liggéeyal yàlla garab bi muy faat dafa am ku gis muy naaw donc xëy na mu ne ko waaw yow sëñ bi nii nag mu ne ko ah man di rëcc naa man lu mën a xew daal rëcc naa tamit waaw waaw waaw ba boo seetee mu ne ko na mu ne bett maanaam ak maktuba maanaam mën naa xam daal lépp lu ñu ragal ci suuful xaatim yàlla musul na ko si mën naa am loolu la mën naa am loolu la ñu jaay yaakaar ah ah bi ma faatoo bi ma xamee ci la faatu dafa am ku gént gis ko muy naaw gént gis ko muy naaw mu ne ko waaw eh sëñ bi yow lii nag mu ne ko ah man de rëcc naa ma waaw. parce que dama ko laajte mu ne ko ñu ne ko génn naa dina mu ne du dëñ du dañ du la gis ah Allah ture ci naa mën naa am li nga ragal ci sóorul xaatim yëpp yàlla musal na ko ci mën naa am loolu la wa xalaayiqil ak i jikko su ci hin yu de way yombu araqa yu gën a sew mina nataa ci lay waala sa te gën a neex min jadatil moeli ci koom ak aji bëri njaboot almurmidi ku raaji fëggu mu ne boo àndee ibnu nasir ànd ak ni muy doxee sa bànneex mu ngi ni yow moo xamee xenam njaboot dundal de soxla xalal ju bëri ndéeg ñoom nga ñàkk lool nag xewal gu mën a doxal sa mbir dikkal la nay kontaanee ci xewal ga da gis ne lii ko gën ci yow xamut waaw boo àndee ibnu nasir itam da gis ne àndandoor bu gën kii ci yow xamut wasiyaat ëpp na li ma tëtuwaa noyeeg jikkoom yi al anaama nit ñi nit ñi ak nuñ mën a mel ak luñ doy doy doy waar Sayyid ibnu Nasir lim mën a supporté ci mbaaxam ñoom seen doy waar ga àggu fa waaw mais lim mën a supporté moom ci mbaaxam doy waar rek nit ñi àggu fa yow bu baax a mm. baax xasan laa ko teg waaye kenn ci nit yàlla yi da ngay dox am benn mm. waaye bu ko xapp mbuub itam dóom boo xappee mbalitam dóom mu ne alhamdulilah ko xeexoon safara kay xaamee dóom ko waaye xam xam na ne doomu dindi bi ay bakkaat moo koy waral maanaam ñi la sonal ay bakkaat da koy waral te bakkaat day waral ni dem safara mm. kon moom bu ko lii dalee balaa tuumaal kenn na tuumaal boppam. bu ñu tuumaalee boppam nag su fekkee lii rek moo ko ci dal moom lay sant ko dem rek amul lu mu di porté waaw ah, ku ko saaga it mu ne ndox ku xapp ndox it mu ne ndox lu ko di def rek mu ne ndox waaw. Ah, te loolu bu baax a baax gannaaw buñ ko tuuree mbari doom doom la kanam ci dem mooy jomb moom naaru jaar na ma lay waxoon te bu mu nii nii muy ci jot moom kay nay sant de sant rek de sant de sant rek waaw ah, te loolu bu baax a baax waaw. konoon wute naa def ko ne dimanche soir na yegg jikko yooyu al anaama nit ñi waal basat wootee na soo ba tafatuli malaanam gën kulla jaafin bépp aji bekkingal fekkalatin ku daaji bon ci jikko ku wayakamte jaar fu bon daa la baaxee ba doo xam nooy def wasaqat nandal na ñoom jikkoy ibnu nasirin qulubal xalqi xoli mbindeefi kaasa tere ba ay kaasi ngërëm ñëpp ko gërëm bi tajaawusin ci du mooyu ngëj bañ gi muy topp bañ a topp yenn yi wa taatufin ak yërëm wa taxammudin ak sutural waaw la woon hatta aadat kulla xibbin kaasihin xibban wa barran kulla anwa alwadi sayid ibnu nasir ni ko njëb gërëmee ndax ni mu doonee kuy muñal nit ñi seeni melo ak ni doonee kuy yëngatu ci loo xam ne jàmm rek lay indi ak ni mu doonee ku xam ne dafay suturaal yu bari mu ne hatta aadat ba telloona moom sayid ibnu nasirin ku la xibbin bépp aji huruj kaasihin ku daa ji nëbb nooneel xibban muy soppi mu ne da ngay ku ko bañ lool waaye day mujj sopp ko ngir baax gim baax te mbaax sakkan wa mu delloo kulla alwaa bépp aji ñëgas ci xuloo alwadi ku daaji dat ci xuloo baran mu daaji baax nga gis koo xam ne da ko jubluwa di waaye day mujj fonk ko la ko def mooy la mooy jëfandikoo rek idfa billati hiya ahsan yoraa jikko ba gën a rafet la di jëflanteeg nit ñi rek fa idallati baynaka wa baynahum adawatun ka annahu waliyyun hamim suba dana bëri ku la bañoon lii mujj yaa koy gënal ci nit ñi wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru waaye nag muñ du ko wutee wa maa yulaqaaha illa du haadin adiim li am mooy borom sax sax moo ko mën a sottal sallallahu bi makarim al axlaaqi kun mutaxalliqan li yafuuha misku sanaika al atrusabi in ba'ta sadiqaka in aradta sadaqatan wasa addu wasa binnati fa ila nadi moom àgg rek. axlaaqi hassin lil wufuudi hula hilin mutawati il adnaafi laysa bi mismadi law ri'tahu naajatka anhu lawaa'ihun faadarta ma tahwa fala tata'alladi aynul jawaadi furaaruhu fa mataa ra'a aynayhi mu'ribuhu yuhillu wa yasjudi aw ru'usahu fa basiru bitrin qaa'ilun laa ba'sa fal khidmati fa jaa'ikum du ñu jàng loolu. axlaaqi hasin jikkoy aji tàllal xar kanam. axlaaqi hasin jikkoy aji tàllal xar kanam li lu foo di ñaal gan ñi. koo xam ne heure boo rotee ci place am la ngay njëkk a seetlu ci moom mooy mandargaam te mooy xar kanam bu fireeku kun rayiqal bisri innal hurra himmatuhu sahifatun wa alayha al bisru unwanu mu ne ak ak ngor téere la kanam ci jamonoom adressé la ci walahilin ku de sang mutawatil ak naafi de ku nooy wàll nga fekk muy ku neex a àndat ku ñeme masuliya laysa bi mismadin dut koo rëylu gis na ko bu baax a baax a baax si amati yaa si mu ne ko bëgg daraja kenn mën na ànd ak moom waaye koo ñemee hen mën na ànd ak ku ne gis na ko bu baax a baax ba mu ko xàmmee la ko xàmmee la ko yàlla may la ko yàlla may may la mën naa ko dégg ci wax yi mu ne bokkuñ de ah mu ne bokkuñ ah mu ne bokkuñ de ah. law ritoo boo ko gisoon arab dafay war a gis na. da wax itam raa gis na su demee bay tasrif nag raa lay tasrif waaye raa amul mudaari on wala mu yërit on li raa comme ci maanaam doon dana ànd ak tawul faayel buy raa ci la ñuy waxee raaytu buy raa ci la ñuy waxee riitu moo tax ne law riitoo nga xamee ko noonu law riitoo boo ko gisoon moom Sayid ibnu Nasir mu ne boo ko noon naajat te déy la an hu jëlee ci moom lawa i hun mandarga yi dooy feeñ ne saadam ta matta waa fala ta taallati mu ne boo ko noon jàkk ci janoog moom rek ci ngay xamee ne sa aajo dana faju ndax janoog moom rek mandargam faju aajo la saadam ta dajjal nga matta waa li nga sopp ta taallat bul gëlëm ah saadam ta dajjal nga matta waa li nga sopp wala te sa bul gëlëm mu ne boo ko ne jàkk rek mandarga yi ngay jotoon ci moom wala wax foofu gis nga ko baax gis nga ko baax aynul jawaadi bëtëb naaru góor furaaru hoo mooy nattum mu ne fas bu ku xam fas bu janoog moom rek mën na koo xamee ca xoolinam naka ku xam waaje bu janoog waaje rek mën na koo xamee ci jàkkaarloo fa mataara waxtu wu gisee ay na yi ñaari bëtam moori boo aja xam le moori bul parasi mooy kii wane fas bu mu ne doo kii tegtale nitu yàlla mooy saa su ne jàkkare yu hillu dana baatal wees jut te dana sujjoo dana mu ne ku ko xam te xam dara ci mandarga yi ñoo baax ni rek da nga xam ne waajaa ngi nii xadima gu baax a baax a baax ah. salam gu baax a baax xadima gu baax a baax noonu la demee rek dégg nga ay soo suma dafa mos a daje góor ñu àndi fatu dégg naa góor gi ko doom nit yàlla yi ci loolu si yàlla penk yi waxal ma nuñ mel mu ne ko ni yow lañ mel la ko baax wax mu ne ko ni yow lañ mel la ko baax wax waaw gis nga ko baax a baax ah ñoom xamante nañ dégg nga kon aynul jawaadi bëtëm naaru góor furaaru woo mooy nattum fa mataar a ah, waxtu wu gisee aynu yi ñaari bëtam moori boo aje xamleem yu hillu dana baatal wees judu te dana sujjoot aw roote koo walla nga tiit ko walla nga gis ko boo weg ko ndax wegu la yàlla def ci moom ragal yàlla day def ci nit wegu fa basiiru bisrin aji bégle jaa moom tàlle xar kanam la qaa'ilun aji wax la ne la laa basa fabsut min rajaa'ika wamtudi mu ne wegu gi yàlla def ci moom ndax nim doonee ku yàlla màggal ci bi mu dundee ci ragal yàlla tax na mënoo koo gis te doo ko ñàkk a amee waaye nag bi loolu de ku yàlla baaxal ba nga xam ne wékki nga koy wékk nit ku wékku na lu tee da nga dajeeg moom da nga dajeeg tàlle xar kanam ci moom bu la tax a wóolu ne njëriñ wala tàlle xar kanam moo naan laa bës baatu bësu darar wala xawfu wala maaneex lu ci nekk dañ koy firee baat bi su ko defee laa lil jinsi dañoo doyloo li si moom bu ko defee xasab xabaram la basa alayk mooy amul lu fi ragal amul lu fi wàññi dara wala amul lu la fi gàllankoor ci dara ah seetloo ko baax a baax boo koy gis rek daal danga xam ne fii daal xel mën na fee dalee ne xaaja dana fi fajo ah seetloo ko baax doon naa ne mu ne cil maye mu ne la bas la bas alayk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 waafat ka dammatu walidin xaanin rafiqin bilwalidi mumahidi wa yadallu yaradu minhu aybata mambarin wa jalalatan qalbul malikil asyadi mu ne aw jiktawo walla nga dikkal ko waafat ka dikkal la dammatu walidin tàpp ak bàyyi mooy dalal ak bàyyi xaalin bàyyi bu daa yërëm gune xaalin alal walidi rafiqin ku daa ji yërëm bil walidi gune mu ku daa lalal gune mu ne ibnu nasir boo demee ba jaayanteeg moom moom muy sa sëriñ yow taalibeem ni nga xam ne noonu la ko sa njëriñ defatee ak ni ko sa mucc defatee ak yërmande ji moo xam ci yow du la teg mukk loo mënut dafa mel ni rek baay bu xam ne dafa am doom bu ndaw te mooy baay bu bëgg doom ja te attan ca toppatoo ga nam koy defee ndànk ak nam koy taxawoo ak nam koy nee na kuy taxawu nitam la ku koy xaar la kuy ànd ak moom ma nee na wala ren dana yendu wala nga dana sax yoroo du dellox mooy de wet min wu ci ibnu nasirin ibnu nasirin xaybata mantarin ngir wegat gisu waayam wa jalalatan ak ngir màggam xalbul malike xole buur al asiyadi bu daa ji jàng ji doq waaye buur bi dina réeru ci nit ñi boo ko gis muy jàngalee ba benn su dajee ibnu naasirin muy jàngalu su dajee ibnu naasirin xol ba day tur turi ndax wet gum wet ibnu naasirin ah, eh, ndëg wet bu ibnu ak darajaam màgg gi mu màgg li ko def mooy nit bu fekkee ragal yàlla dafa dëggu ci moom lépp ko koy ragal soo ko moo koy buur yi sax waaw buñ ko gisee seen i sudda wala dam lu dana woon lu dana sax yaroo du dandox menu tiim ne nasirin haybata mambarin ngir wagub ceetaanam wa jalalatan ak ngir màggam kii dafa ne jalalatin waaye nag jalalatam laa ko teg <coughs> su fekkee jaay bata la wadifu di la waawa mën naa ba léegi muy jalaalatin ku ratiwu ci nondamin qalbul maliki xolab buwe ala fiiri bu yaa di jàng di dokk waaye baate sigren aday waade fàttali bokk na ci yi muy taalibaam da ko waat da ko fàttali yàlla bu baax muy waade yoo xam ne law xanat buñ nga joon maa ànd radat kon mu jee maa an da ndox bi aaratihin na ci seen miir jël na di wéy dëgëri ba waane li nga xam ne bu wàcc ci xol yi ni ngi jeexitalee ci xol yi suñ nattalee woon ne fa de tey buy ci suuf boo xamee ne mu ngi xiin pour taw rek nga gis daj yi duru yi muy ibnu naati waajaayu waxam rek dafay jeexital ci wu fi tërlu dañ mm. ko ne kenn mënul ci ñoom dara kon xiima woo xam nu kenn mënul la ko mu ne waajaay woo xam rek dafay jeexital ci ñu sa tërlu ba foo ne bañ foo ne kenn mënul ci ñoom dara kon naka waxam mu ne waxam bu doon xiim wu waay taw bu dee wàcc mm. kon bu xiimee rek nga gis da yu ko waatu ruyu kon bu wàccee waaye laa te sir leen xalaay waade yoo fàttali waade yoo mooy nekk de fàttali leen nit ñi ak di ci yàlla mu nekk waade yoo xam ne yu mën a toor xol la yu ko mën a nooyal la benn yoo xam ne loo xadat bu ñu mujjoon maan de ndox xadat mujjee maan de ndox bi aare bi na seen niir su mul jalma di wéy dëgëri dëgg xëy na la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax ku nekkoon na waxam ne mënoon ci déglukat yi kaana nabiyu alayhi wa ida takallama atraqa julasaahu ka annama ala ruusihim tayr yaa saadaat yaa saadaat naatiqina baada qatibatan الحديث تشهد أن الآية الفهيم بكل قول كريم أنت قائله تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم suuful ay mbir lañ turawaay yooyu def na leen màndale min bihaari maarifin ci ay géeju xam-xam te te jooju ñii tawal Aqtaaral quluubi gox yooyu ñoom xol lañ aljuhadiya de wu beeko mooy ay niir lañ yoo xam ne ci géej xam-xam la yoo duyee dem sotti yi ca xol yu beeko yi maa ci xam lay waxee te itam wax pour xeeñ xew wut lay def xam nga dañoo wax ne niir yi góor taw ndox mun koo jëlee ci géej gi bu tiimee géej gi te tàngoor wi mooy def coono guy bawoo ci géej gi ba xam ne seen niir ya loolu nag bare coono jooju nag may def ndox mu xam ne niir yi buñ demee ci yeneen barab moom la ñoo sotti muy taw ñu da ko misaale te bu fekkee da mu tàng lool ndax mu tàng lool nga daal di ko dëpp coono ji muy def boo yëkkatee ndëpp di da yorew ñàkk mais noonu la mel ay borom xam-xam wax waxi xam-xam nag soo ko mënta wéddee xam-xam dañ ci war a gàtt rek dañ ko war a nangu mbaa nga gàtt ca waaye dañ ko dee wax ah, gi lañ koy jëlee li waral mooy buñ ko tiinee tàngooru jant bi mooy def ci géej soo leen joo xam dafay mel ku doon mooy doon ndox mi ñuy sotti ci yeneen barab comme ni nga gisee tey boo yekkee ndox mu tàng nga di ko ndëpp cóola jooju day def ndox ci kaw ndëpp gi wax nañ ko de ay borom xam-xam min nag ñoo koy wax ñoom ne borom xam-xam yi àddina ak buñ ne borom xam ay borom xam-xam lañ daal waaw yow xam-xam la soo ko mën da wéddee xam-xam daanaka ba mu ko nangu rek wala nga gàtt ja mu ne nag moom tawam bi niir yi koy sotti ci géeju xam-xam la ñoo jëlee ndox mi la ñoo tiim su ko defee ba yanu ca buñ ca yanoo itam fañ koy sotti mooy xol yoo beekoor yi suufun ay niir la turalwaa yooyu def na leen mandale min bahri maari min bihaari maarifin fi julli xam-xam te tëjoo bi ñuy tawal ak kataaral kulóo bi yaa ñoom xol yi la ak jumóot yi réew beekoo min haa nekk na ci niir yooyu xalal jafalaa ànd ak matale dafa mun niir mus gunun mu daaji sëngërtël mun mu daaji yol mu ne tuuli yi am na ci yoo taw taw yu yaatu yaatu taw daje nañ kapp mel ni ay ñoom lu ñu woote daawa jafalaa la woote boo xam ne ñëpp la ñoo amul xëj amul seen waxoon naa ko ci gannaaw walin naqara aji nekk la ñu mooy woote boo xam ne ñenn lañ dar xooleel mu ne ñu ko wuta au wi din xëjju aji mbakkan seggu temps wii mooy dañ laa daral nga bokk ak nit ñu baagal ñu doon la jox suñu bopp la loola ñu daral la noona muy la seggalee ci sa mooy temps wii mooy grand yooyu bu koy taw ñëpp lay tawal muy daawa jabalaa ba xam na loolu bu koy taw ñenn la koy tawal nga xam ne bokkoon nañ nag ca taw bu njëkk ba waaye taw yi la dañ koy la daawa naqara nga yëngu naasirin léeg mu nekk borom xam-xamu diina bu xam ne lislaam bi yëpp lay waxal xamul taalibeem amul ku dul taalibeem lay waxal diina ji subaa lul fu fu bëgg ku bëgg a xam sa diina rek ku bëgg a xam la may wax ci wàllu diina rek soo ko dégloo dañ ko jëriñu moo tolloog daawa jafalaal mooy léeg-léegi nag mu am loo xam ne taalibe sëriñ ne koy séq loolu nag ay taalibe rek ne koy séqat mooy daawa naqaraa bi ah léeg-léegi nag liggéeyam jëm ci nag loo xam ne taalibe sëriñ rek nag ñoo ko war a séq loolu nag mu ay taalibe rek ne koy séqat mooy daawa naqaraa bi su ko la ñoo woote daaw a jafe laa ñun ci lañ bokk ndax waxaale nañ ñu ci suñ ci demee du nee xaraankat la ñoo woote ñoom daaw a naqaraa ah mën nañ koo jëriñoo rek ah ñun duñu xaar te yam du xaar xaar du yëfi góor te fekk yaa si góor moo war a ànd ak moom waaw loolu moom ko jël la ñoo woote ñoom daaw a naqaraa waaw ñun duñu xaar ah ndax xaar du yëfi góor. te Cheikh Tidiane gor moo war a ànd ak moom barab Cheikh Baaru maa musigat bi maa i xamaamatin lakin bi maa i mahaajirin lam tajmudi yeehin وما سبقت بنار غير ما نار الأذى وحرارة لم تبردي كرم الخلائق ينسها والعلم لا karmul hadaiqi wantibadul onjudi ودنانها الفكر الصفي هواؤها لم يكسر سر الهوى أو يسخدي والكرس قول فيصل في راحة من مقول ثوب الصواب معود قد صانعها صون النفوس وبصها بس النفيس لأهله للسمد لا لا نقول mu ne sa sàngara la waadew sayid ibnu nasirin la doon wax mu ne kenn sàngara la ci nim neexee ak nim mara yëngatee xol bu wax ñëpp kontaan te xol yëpp ñuy maase di dund ci waxam bu baax maamu si gat njareesu ko bu may xamaamatin ci ndoxam niir su ko defee sàngara bu ba ba mën a ba ba am doole ji mu war a am xam melokaan bi mu war a am xam kañ gi mu war a kañ nit du koy sa kattan yow nga du koy naan mu ne waa di ibnu nasir nag sàngara la sàngara xaaja la njar moom nag du sàngara bu ndoxam taw moo koy njar laakin li fi nekk ñu ay bët yoo xam ne lam ta ñuut wayuñ man koy luy jar sàngaram si xooroon nga ñu ragal yàlla mu ne waa neex na lool danay jeexital ci xol yi lool waaye kenn du joxe naa ngi tegoo nag ndax diggante wu yàlla lay seet ci waxam ah dana wax nit ñi luñ mën a xam rek <laughs> waaye kenn du joxe naa ngi tegoo nag ndax diggante wu yàlla ci waxam dana wax nit ñi luñ mën a xam rek xaati bu naasa ala ala qadri aqulihim hmm. loolu lañ jàng xam-xam boo dee wax ak nit ko mën a jëriñ hmm. waaye du ne ku ne rek hmm. lay bàyyi xel nu mu rek loolu lay wane ci waxinam fii min dallin waxtu bi xas soggeesu ko bi naarin ci sàngara rayri ma naarin asa lu mooy safaraaw njàqare waxaraaratin ak tàngoor waqala lam tabrut du mu sedd te itam saa yoo xam ne dañuy faral di ko togg boo ko ibnu nasirin mu ne ji ñor lay doon mm. ji ñor a ñor a ñor lay doon mm. xam nga li koy togg mm. mooy tàngoor ragal yàlla mi ngi yëg ci xolam ah xol bi li ci ragal yàlla sax li ko muy seen diggante wër yàlla moo tax bu waxee rek waxam dafay ñor lool kullu kalaamin yabrusu wa alayhi kiswatul qalbi alladi minhu baras mooy wax day loo xam ne maanaam day lamboo dara cëb ko dayal xol ba mu bawoo day lamboo ko dayal xol ba mu bawoo xol mm. bi su fekkee bëgg yàlla moo ci nekk rek mm. borom yàlla rek lay wax xol mm. waa ji day am ci déglu ko mu jeexital ci ñoom man leen a jaaj da def man leen a soññi ci li ñu war a def su fekkee nekkale ko ndax dëgg la dëgg la il faut nga maanaan kàddu yi ku ne xam ne dëgg la te itam wax dëgg yàlla wax ko jot na te xol lam bàyyi ko bëgg dëgg rek moo ci ne si dëgg moom day barke waaw te léegi ñëw ko mu ne dëgg dafay barke waaw te léegi mu ne dëgg dafay barke waaw sëñ bu baax waaw mu ne dëgg dafay barke sëñ bu baax waaw mu ne mu ne dëgg dafay barke waaw. dollin wa turri xat toggeesu ko binaarin ci sangara binaarin ci safara sangara suusu du safara ko togg de si léegi muy togg sangara yu nga xam xëyri maanaam asa lu mooy safara waa ragal yàlla la xanaa boog ragal gëm ragal def alxawfu min alxaatema def alxawfu min kaza wa kaza ci mbir yi nga xam ne rek jaam ñi war nañ ko ragal seen digganteeg seen borom waxaraate teel ak tàng ak tàngoor lam tabrut boo xam ne du mu sedd waaw waaw karamul xalaa'iqi tedd ak ay jikko xeesuhaa mooy cosaanam wal ilmu ak xam-xam te itam bi mu te itam bu dee sàngara sàngara ci garab nga koy jëlee la déwee ko woon de mu ne kii waa de la xam nga coosa xam nga lu ko meññ mooy xam gi mu xam li mu war a te amee yar bi mu war a xam ndax wax dafa laaj xam-xam dafa am itam yar yum laaj xam itam yéene yum laaj mu ne matal gu may matal yooyu moo tax waxam da am da am tuuma xam ko waxee de waaw wax gannaaw bu mu laajee dafa am yar yu mu laaj tam yéene yu mu yoo xam ne kan dajee ci moom mu doog a wax waxam man dajee nag waxi kun wut ci moom xam nga ni waxee de waaw nit ñi boo waxaat ñoom li ngay wax na nga ko xam na nga ko xamee lu raw ni nga ko waxee jënd naa wax loo li nga xam nga wax ko moom jeex sax kon jarul de def bayaan kullal bayaanee sax lu tàng ñëw dégg nga waaw te itam wax gi ngay wax ñii la déglu bu ko jëf mooy lenn loo gënee nit ñi bu ñu muy lenn lenn lu gënee nit ñi ñu daal da nga leen di jàppee comme comme say sang ah ndax ba nga mën di ci sa xam-xam sa loolu bay wax ah ñoo ba nga mën di am tiyaabu ah, ah da nga leen di jàppee comme say sang ah, leen bu baax a baax ah ndax ñoo la dimbale ba nga mën di ci sa xam-xam bi dëgg la yàlla kii dimbale waaye ñoom moo tax il faut ñu respecté leen bu baax jox leen bu baax wattu bu baax dégg ko baax la sàmm boo bëgg te bëgg ñu maam ya loolu nga war a bëgg ci ñoom waaw mooy jublu ba la ñoom teggin la booy dawaa sa diggante ñoom léeg mooy jublu ba waaw la sàmm jur ga ngay sàmm ca àll ba loolu nga war a bëgg ci ñoom te sàmm bi jurul xalaatu du yàlla gëm ko. xalaatu loolu xalaatu du yàlla la gëm ci lay loolu xalaatu ko. xalaatu du yàlla sopp ko ci lay. xalaatu loolu wutul lool. xam nga li muy wut. moo taxawu lay rek. ba nag bañ mel ni wax ni nag war a mel. jëriñ li nag war a jëriñ. waaw. xalaatu nag la ci ker. mu ko toppatoo baax ci ndox. ak ci topp loolu lu ko ko def léegi la de lu ko ko def léegi la ko ko si de waaye lu mu jublu mooy na ko si tekki mucc ci lu koy gàllankoor ci tekki at yi jëriñ li nga xam ne moom la war a jëriñ ci tekki loolu lu jëriñ la jublu waaw. yow waaw waaw nit ñi dañoo bàyyee rek ñoom ñu mucc nañ jëriñ dañoo bàyyee leen seen xol nag lu ci yàlla dem moo ca ne. waaw waaw yow li ñu dana ko baax a baax nga xam ne ku war a jëriñee nga dana ko baax a baax a baax nga xam ne ku war a jëriñee nga ku war a yërëmee nga su ko defee nga bëgg dina mucc bëgg dina jëriñu waaw. léegi nag nag ku ne yàlla ko am wax naa la ko waa ci téere laa ko gis waaye nekk ku soxna ci man de li ma la wax nii nekk ci man de waaw soo ko gis ci téere wax la ko rek waaye nekkul ci man de waaw. yow bu baax la waaw loolu loolu ku sell ku bëgg yàlla mucc ci moo ko man wala moom moom àgguma ko seen waaw. karamul xalaa'iq tedd ak jikko yi xeesuwaa mooy cosaane sàngara soosu waral moo xam-xam laa karamul hadayiq wala ay sindi yoo nekk ci tool yi doon de déedéet wante judi ak xool yu cégg loolu ay cégg de dul ay karmu yu leen wutal de lu si wut suuf la mën ay sàngara si maana kay su ko demee sàngara bu jógee ca ga moo jógee ni dangay ko ba xamee nan moo fi def dafa am buñ koy su mu bëggee joxe xel li koy joxe mooy dam saaf waaye doo yëg lu naafiri ak luy dam saaf bi gën a sànga mu ne wuddi naa loo waa dam saanam al fikru mooy xalam asafiyu bu daay di sell xam-xam bi dafa ànd ak settantal lool waaw settantal lool settantal lool ci mbir yi te tontal na leen ci li mu war a wax te tontal na leen ci li mu war a gis ni lépp nga dañoo ko conséquent gis nga ko bu baax a baax loolu yëpp yow laa waxoon sama musaab la sëñ bi xam nga xàll yi léegi ñu mel nii jamono mag ñi mënuñ ko woon ndax booba doxa tànk rek moo daan am te nit fu mu xaj yomb na ndax wax dëgg yàlla ñu bañ daaneel fu mu ne faral la ñoo te boobu ñaare ñax ko daan bëri nga jël xaaxaam bi di gudd mu ne boobu doo mos a am mu ànd ak ñu jaar ci yoonu bëri xaaxaam mu ñu bàyyi mu yore jëm bàyyi mu mu sore xaaxaam bi di ci tëkk dinañ dem bay daan sëñ bi ne ko am ki wàllu sëñ bi sa mbum ne xaaxaam bi waxut ko dara di daan ba kanam mu waxaat ko mu ne ko da nga ko seetluwul nag waaye dindi summi mbubb dindi lu xaram ba ca nekk ah moo gën a jot summi tubéy dindi lu xaram ba ca nekk fekk na loolu ko baax waaw ñu dund ci xam-xam yëpp rek yëpp rek yaa ngi gis ah nit bu xolam yoree dëgg dëgg dëgg dëgg ah lu ne rek lu ne rek waaye jël la ñu jag lu ne rek waaye jël la ñu jag mu ne ko fa mu ko seetluwul waaye sumb mbubb dindi lu xaaxaam ba waaw moo gën a jóg sumb tubéy dindi lu xaaxaam loolu baax waaw loolu baax dina ko baax ko xamoo kan la waaye moom itam daa fekk bu nit bu rafetee xam-xam moo lay gindi rek waaye yéen koy ci xaaxaam bi la defoon ah te it wax dëgg yàlla moom waxam jëm moo tax ñun ñu xam ñun ah nga bu baax a baax xanaa waa ko min sirri laa waa ci seddak bànneexu bakkan aw yus xat wala tàngas wala tàngalees ko su ko defee dansan moomu maanaam sàngara yu naqari wara la boo ko defee ci dansan bi fokk fi barab nga koy tàmmal ndax am na tàngoor yoo xam ne déggu wu moom am na sett yoo xam ne déggoo ñëw ñoom dégg nga bu baax a baax dafa am melokaan yoo xam ne déggoo na xam-xam te lu bu baax a baax am na sabaree boo xam ne ak bakkane boo xam ne déggoo na xam-xam am na ñoradi boo xam ne ak pëléwaan rek nit ñi boo xam ne déggoo na xam-xam kon nag yàlla musal na ko ci bakkane dana jox na ko ñor maa mel wu rafet wandeeg nit ñi waaw bu mu xamee barab bu nekk la fa dëkk moo tax al fikru mooy xalaat asafiyu bu raa ji sell waaw waa jëw yo lam ñu waddeesu ko min sirri laa waay ci seddatu bànneexu bakkan ah nit koo xam ne dafa amee xelam buróo de moo ci nekk mooy balaada mucc na mayus xat wala tàngalees ko wala bu xaraaratul maye soba kabe yow mucc rek su ko defee sàngara ci kaas lañ koy xelli kaas boobu loxoo ko yëngu ci la ko waaba